waaw asalaamaaleykum. Diallo Diallo. programme bi nee na trop. jërëjëf jërëjëf Diallo ci yàlla def barke. amiin amiin yàlla may ñu nopp dégg. amiin amiin ñu ñu roy li ngeen wax. amiin amiin amiin. yaa da nag suma yàlla dama bëgg ci maam yëpp ñaanal ko ñaanal ñu ñëpp. moom mooy suma beneen yaay Alima. Bara. jërëjëf mm. jërëjëf aji jërëjëf li mu wax nag am na solo noppi dégg. dëgg la waaw ñu ngi leen di sonal yéen a ngi ñàkk a jot. di mm. ñëw bàyyi seen soxla yi. Mm. di fi ñëw ba xaaji guddi. ci wàllu islam yal na ñi nga xam ne ñoom lañ koy waxal mm. ñun ñi ngeen koy waxal mm. yal nañu yàlla may noppi déggate ñu jëfee ko euh, loolu am na solo trop islam jar na ko mm-hmm. li yàlla dencal mm-hmm. euh, ñi liggéeyal mm-hmm. loolu soo ko nit xamoon te gëm ko dootul xendal dootul fanaanal dëgg la loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam jël dundam gi yëpp def ko xaddiyee mu ñeel jaam yàlla yi ndax yàlla lim ko dig yowmal qiyaama rek moo ko am naka noonu nag lañ rawantee ca paygu ga mm-hmm. kem niñ joxee suñ bopp yàlla mm-hmm. di la lëggéeyal yàlla mm-hmm. xanaa li ñuy defee ñu ngi fàttalil jaam yàlla yi nga xam ne ñu ngi julli ci gannaaw imaam yi gannaaw ustaas yi ci jumaa yeeg jàkka yi ñu bàyyi leen xel waaw bàyyi leen xel jaamu yàlla rek la ñoom li ñuy def ñoom seen warugar la diina moo leen ko sant dañ ko def ñoom itam am nañ warugar gu war ci ñoom ñu ah, leen ko bàyyi la ñu leen fàttaliku ñu ngi leen ko fàttaliku wax dëgg yàlla daal ñu ngi koy fàttali jaam yàlla yëpp nag mm-hmm. mënta nekk ci réew mi mm-hmm. ak bitim réew yi xamal ne wéy liggéeyal yàlla yooyu mm-hmm. ci leeral diina ci jàngale alquran yi ak waar nit ñi ak di leen jiite soxla nañ bàyyi xel ba ci këm imaam ba gën a ndaw ñu ngi koy dénk jaam yàlla yi waaw loolu daal ñu ngi koy wax ci ngir teel rek a tax nag dëgg waaw tax dañ gëm ne itam ku ci def rek ku leen dimbale rek yàlla nga dimbale ndax yonent bi salaa salaam bi mu ñëwee di oote mhm. eh, yàlla la amoon mhm. ak eh, di leeral leeral leetar bu ko yàlla jox muy ko jàngale mhm. dafa wax ne qul laa asalukum alayhi in ajre ila ala allah lii ma leen a jàngal muy diina ji ngeen di ko xam ci texee laajuma ci benn fay ki ma war a fay mooy yàlla xanaa lam ci teg rek illaa mawaddatan fil qurbaa fekkee ne xam na daal lu ma soxla ci yéen mm-hmm. mooy na ngeen ma sàmmul suma jegeñaale mm-hmm. ñi fi ree ko ne na ngeen bàyyi xel mbokk gi ma bokk yéen mm-hmm. ba bu leen ma def lu ñaaw mbaa mbaa ngeen wax ma ko ñii ne de dafa wax ne xas kanam bi nga xam ne gëm na yàlla gannaawam bu fi jógee ko nañ ko bàyyi xel bu ci mënta xew daal moom moom mi nga xam ne moo doon jàngal nañu diina xeeyoon na ci nit ñi ñu xormal ko waaw xëy xëy na ci nit ñi mm-hmm. ñu xormaal ko mm-hmm. moo tax bu ñu ko waxee rek ñu ne sallallahu alayhi wa sallam ku xamante yool bu baax rek diina ci rek moom xam na ci cër naka loolu itam képp ku jotal rek diinaam rek xam nga cër ñu jël ki ci laaj bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum bisimilah aji Ayda maa ngi laa nuyu maa ngi laa fay tur wi ak suñu imaam bi maa leen naa ziyaara si weeri koor bi jërëjëf dana yàlla nangu ziyaara ziyaara amiin yaara bi kan la dafa man la Maymuna Ja Maymuna Ja Maymuna Ja jërëjëf fan nga ootee Ja di Pakunda jërëjëf Ja waaw dafa am benn laajte bu ndaw rek bu ma bëggoon a laajte bismillah dafa am feebari biir boo xam ne daal amee naa ko suma buti si feebari biir ba maa nga jot problème boo xam ne mënumaa oor waaw yàlla def bi ma problème boobu dalee nag am na ko ma laajte woon mm-hmm. léegi li ma diktal daal daf ma wax ne ma su nekkee ne mun naa génnee ñeenti poti maalo ak ten dalasi suba bu nekk moom laa dee génnee mm-hmm. te ma xaw a dégg loo xam ne nag xaw naa jëfe ak li ngeen a wax tuuti mm-hmm. jërëjëf moo tax ne xaaral ma xool ma laaj te ba xam ma gën fee xam lu set ma laaj la ma dee mun a oor ma laaj la ndax feebar boobu noonu docteur daf la wax ne dootu wérati waaw bu yàggu nii sax laa jógee dara Dakar Sirène men yow bu rek laa ñëw. mel ni yaa ngi faju ba léegi. yàgg na ci yow. waaw bu yàggu nii last week bi rek laa jógee Dakar. ndax feebar bi yàgg na ci yow. waaw depuis daaw maa ngi ko amee. su xiifee rek ma but yëpp a dee waaw ah, su xiifee yi waaw léegi. Ah, waaw jërëjëf jërëjëf dégg nañ la. Mm-hmm. xam nga islam dafa nekk diina diina joo xam ne. Mm-hmm. diina yu suur la diina jàppandal la. Mm-hmm. waaye tam ah, am na yu bari yoo xam ne dafa am ñu bari ñu ko seq dañ ci war a bokk mu soog a leer waaw ñun fu mu ne nii suñu waar rek li ñu mën def mooy joxe dañuy joxe formula mm-hmm. formula bi nag practical bi mm-hmm. kenn ku nekk yow yaa xam sa mm-hmm. ne nii feebar bi nga xam ne mooy teree mën a or nit mu war a génnee mudd feebar bi nga xam ne docteur dafa saxal ne duut buy wér xam nga dañu waxoon ne yàlla dafa wax ne ku ne ku feeb ku feer fekk ci yéen mu feebar na dog Mm-hmm. su weer koor jeexee mu fay mm-hmm. su wéree mm-hmm. kon su fekkee ne nag su weer koor jeexee du tax mu wéy du tax mu wér la boroom xam-xam yi wax kooku moom la ko war mooy mu fay maanaam mu mu joxe mudd pour bés bu nekk léegi nag des na nag moom fu nekk nii ban formule la amee fekkee ne feebar bu dul wér la kon su boobaa la ko docteur wax tam wér tam xam ne duutu lu wér kon mu def loolu mu continuer di génnee mudd di génnee mudd. Mhm. amaa su fekkee ne feebar la boo xam ne docteur yi ñoom am na yaakaar ne mën nañ koy faj te mu ngi faju te wéragul. Mhm. kon fu mu ko digal a gum ne loolu bu bañ ne bu boo xiifee rek. mu butit na bu fekkee ne loo xam ne lu ba wér la. mu xaar ba wér na xaar ba faj ba wér fay koor gi gi mu amee. yem romb waaw comme mu ne daaw ba ren la bon ñaari koor dugg nañ ci. ñaari koor dugg nañ ci waaw su boobaa fekkee ne dafa faj ba wér. Mhm. lu mën a wér la na faju ba wér su su wéree mm-hmm. daal li fekk ba muy wéree nag te mm-hmm. yaakaar ne dina wér mm-hmm. koor moom waru ko yàlla taggu ko ko parce que ba léegi li tax koo war ko teggiwut ci moom bu demee na ba docteur sax ko ne li duutu lu wér nag su boobaa nag mu soog a toxu nag ci fay mudd amaa ñeenti poti maalo yi nga wax ne moom lay ak ten dalasi boobu ci fay mudd foog naa ne njuumte la ah, mudd moom foog naa ne ah, poti mudd nga ngi koy jaay mbedd mi ah, ñu ngi koy jaay foofu du fa nekk mm-hmm. fexeel nga am pot boobu mm-hmm. xam mudd bi ñaar am na boo xam ne dañ ko def mu ndaw par ñeent pot la am na boo xam ne par ñaari am na boo xam ne par benn la mm-hmm. loolu ko xam ko su fekkee ne dem nga ba sax ne da war a def mudd nga natt pot boobu joxe ko walis su ma fàttewut ñeenti poti maalo la woon wala juróom ñetti pot la waaw juróom-ñetti pot la juróom-ñetti poti maalo daal. Mhm. Euh, ñu bëri wax nañ ne moom la. Mhm. kon su fekkee ne loolu la mhm. doo mën a fay xaaf ci lii fay xaaf ci xaalis kon ñu ngi koy dénku loolu daal. ci waaye naan lem la la passé lay laajte kay mbaa de. du ci la daal fekkee ne bi ko feebar bi dalee ba léegi. waaw wéeragul. koor waragul ko. ndax yàlla dafa wax ne ku mu fekk nga feebar bul xoor dogal su fee su weer koor bi jeexee nga wér. fayal waaw moom li ko jaaxal mooy xëj na ni mu ko daan defee du noonu léegi nag euh, ndax mu comme xamu ko daal mudd waaw léegi comme que léegi leeralal nañ ko ni mu defee dafa na wëlbati na wëlbati rek ah. na wëlbati léegi man li ma ko advise kooku na stop mudd yi muy fay mm-hmm. ndax mudd yi muy fay mënut replace fay gi mu ko war a fay mm-hmm. su su wéree mm-hmm. su fekkee ne docteur daf ko wax ne ne du luy wér kon nag xam ne bon mudd yi war na koy continuer waaye nag mu mu rectify ak guddi koy fa fayee waaw su dee dafay wér daal mm. euh, mu bàyyi ba wér mu fay dafa am ku nekk ci line bi mm. salaamaaleykum asalaamaaleykum hello bismillah hello asalaamaaleykum mm, hello waa ñu ngi laa dégg ah. man la maa ngi nag affaire bi parce nga am na xale yoo xam ne dañ toog lu bëgg soo ooree waruloo mer waaw waaw waruloo dóor xale lan ah, ngay laajte nag euh, euh, dóor xale euh, koor lu lan mooy sa relation daal jërëjëf. waaw am na ñoo xam ne day dañuy euh, yéene yéene bu rafet waaye duñ de xam nag. Mm-hmm. Euh, li gën rek mooy ñu ñàkk wax mbaa ñu laajte ba xam soog a def. Mm-hmm. ba ma ba soog a wax maanaam yar xale dóor ko fekkee ne yar laaj dóor. Mm-hmm. kooku ci biir ci biir weeru koor dafa yokk sax pay ga ndax li tax mu yokk ko mooy def nga luñ san luñ santaane ci diina mooy yar xale. bu dee yar ga dafa laaj dóor dinañ déglu wax ji bu baax nag bu dee ah. yar ga dafa laaj dóor ah. nga dóor ko kooku dara nekku ci mm-hmm. dóorante ak saagawante biñ tere mooy biñ teg ci bakkan ak jalgati mm-hmm. moo tax yun saa wax ne ida kaana yawmu sawmi ahadikum falaa yafsu wala yarfus wa in saab saabahu ahadun fa yaqul inni saaimun kenn ci yéen bu xëyee koor na téye boppam bu xuloo bu mu dàggiwante bu mu xeex hmm. su nit ñëwee song ko xuloo mbaa song ko dàggante ba xeex tontum wala fayum na ko wax ne man kat dama or te ko or du def dara hmm. loolu xuloo boobu biñ teree mooy xuloo bi nga xam ne ko teg ci bakkan hmm. ak faywante xuloo ci bakkan